jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat fii ñu leen di daan nuyoo ci wasaare làmb di am kontante ak mbégte di janoog yéen comme ni ñu leen koy defalee saa su waaye wéetuma ci benn yoon ndax dama ciy ànd ak sama papa suma xarit ki nga xamante ni macha allah adduna bi yéen a ko may no euh, jox koy gët euh, moom Père Birahim ba lépp loo xamante ni rek euh, dégtal na leen ko ngeen ànd Euh, moom laa ciy àndal mu koy nuyuwaat bu baax baax baax di ko siyaar di ko sant di jërëjëf maa ngi auzu billaahi mina rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa maa ngi nuyu bokk internet yi xam ne ñu ngi siiwal wasaare làmb di ko toog fekk ma di toog sama doom euh, Abdou Khadir Kébé di ko nuyu di nuyu Basirou di nuyu Adama Kaaku Ousin Diop xale yëpp maa ngi leen nuyu ak ñu ma bokk liggéey bi yëpp. Eh, di rafet lu seen liggéey loolu wax dëgg yàlla. di leen gërëm di leen sant ci yar beeg teggin yi. Eh, di nuyu ñuy seetaan yëpp di ñaan sama kàddu yi yàlla ne fekk leen ci jàmm yéen ñëpp. Eh, jàngoro ji ne ci réew mi it yàlla na ko fi yàlla jële yàlla na ko fi yàlla jële ci réew àddina bépp nag laa wax. muy jullit muy nasaa muy ñëpp. fas yéene ñëw nag tey toogaat ak yow ni ñu daan def rek. Mm. xalaat benn xalaat waaw loo ma laaj ma wax ci la ma ci xam. dëgg la am na solo waaw euh, Père euh, ñuy ñuy leeral mbokk yi rek euh, dañu nekkoon ci di waxtaan ci wàllu roi des arènes parce que boo xoolee diggante Père Manga ba Mouhamed Ndao Tyson keroog Père leeral na ci lu bëree bëri ba dégg ngeen li nga xamante ni jot na ko wax ci tournoi boobu kon tey dañuy indi ci ñaareel bi mooy diggante Tyson ba tey Modou Lo roi des arènes bi nga xamante ne day jugee ci ci mbër dem ci mbër euh, père nan la ko gisee père roi des arènes biy jugee ci mbër ñëw ci mbër comme actuellement seen jamono gis ngeen ni ci ni ci xew tey léegi gis nga génération bi mujjee xew li ñuy wax ci roi des arènes bi ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am roi des arènes nee naa la lu bees la. Mm-hmm. ak l'empereur des arènes loolu yëpp ay lu bees la. Mm-hmm. waaye loolu amul woon suñuy jamono. Mm-hmm. avant ñun. drapeau moo amoon. Mhm. drapeau yi ci loxo booy bambara mujj dañ naan diw moo yor arène ba arène drapeau arène nangam arène bu nekk da am arène drapeau ba. Mhm. ñu ne champion ba ko ko yor. soit boo nag mën ngaa bëri drapeau bi te wala wala bëriwuloo ko. Mhm. mën ngaa am yor drapeau bi te tekkul te tekk ne mën ngaa bëri yeneen combat yoo xam ne teguñu titre bi. tey roi des gi bu fekkoon organiser nañ ko war a organiser. ba nga xam ne ki yor titre bi mën na koo yor mais dafa am ci ci yu mu koy bëri ak combat ko dul bëree. am na combat yoo xam ne yi dañ naan tey titre bi la ñuy bëri. Hmm. kooku beneen beneen beneen la. Hmm. mais bokkul ne tey ji mën ngaa bëri beneen combat boo xam ne bii bëri ngeen mais du titre bi. kooku bu la daanee mën na la daan waaye daanu la titre bi jël ko parce que titre baa ngi sa loxo. Hmm. moo tax ñaari différence boobu mais loolu lépp organisation la laaj. organisation bi nag moo amul ci CNG bi fi nekkoon. parce que bi ñu gisee ne affaire bi jóg na te mu ngi am ampleur te mu ngi dem kër kër mu ngi jëm kaw dañ ko teel a freiné seet def benn ngemb d'or tuddee ko ko wala boog ñu roi des arènes ñu ne dañ koy organiser comme ni ñuy organiser drapeau chef de l' état. mais père moment boobu. est-ce ah. naa nekk parce que euh, père bi muy bëree Tyson bi mu ko daaneel dañ ne roi des arènes bi ñibbi na Pikine. waaw Tyson moo ko jël. ne jël na roi moment boobu est-ce que moment bi mu doon jugee ci diw dem ci diw jugee ci diw dem ci diw moment boobu mën nañoo jékki-jékki rek mbër mi ko yore nga ne ay eh, taxaw leen roi des arènes bi euh, taxawul wala nangam nangam est-ce que duñ jàpp ne noonu kii dafa soxla mbër mi wala roi des arènes bi mbër mi nekk moo ko arrangé wul bu ko diw nekkee waxu ci woon mais dama ne xam nga li olof di wax naan weñ gaa nga yàqoo ci mbañ xaan mm-hmm. loolu olof a ko wax. pour ñu xam mooy weñ fi ko tàngalee ba xonk mm-hmm. foofu nga koy mel leme nu mu la neexee. waaye boo bàyyi ba mu sedd mën a too ko lem lii erreur la boo xam ne dafa fa mu démarré dafa sori mm-hmm. te loolo booba tax dañ ko doon teel a dindi mm-hmm. organisation bi teeloon ko dindi teg ko ci yoon mu nekk ci raay bi mais dañ ko tegul mu nekkul ci raay bi nekkul ci yoon nekkul ci raay bi ba mu agsi ba fii kenn mëntu ko fii dindi lii moom li pour dinditi ko dinditi roi des arènes ku dañ na let ku daan roi rek ay loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax di teg mm-hmm. te loolu nag formule bi ñu ko defee ne baaxul mais père loolu est-ce que du li ko li ko Yékini téye téye bu yàgg moo tax ñu jàppoon ni euh, Yékini mooy seul roi des arènes bi nga xamante ni euh, moom moo ko nekk dool ko kenn werantewul ni Yaxya Jóob Yékini mooy roi des arènes parce que toog na onze ans yoo xamante ni quinze ans quinze ans de la dem mais ah. roi des ah. arènes bu téye na ko onze ans yoo xamante ni ah. daanuwu ci euh, ci biir onze ans yooyu ku ci nekk rek laale naag moom waaw champion yi yaakaar ci làmb yëpp laale mais ba ko Balla Gaye 2 daanee kenn wérantewul ni Balla Gaye waaw parce que moo daan ki fi mën. Mhm. maa daan ki fi mën tekkul ne maay roi des arènes. ku daan ki fi mën yaa fi mën. Mhm. ki daan ki mën yaa fi mën waaye tekkiwul ne yow yaay roi de arènes roi des arènes moo bi ni ni ñu koy waxee ni utiliser wuñu ko noonu. Mhm. maanaam jëfe ko ni ñu koy waxee dañ koy wax muy moo bu ñuy wax mais du lu ñuy jëfe parce que un roi des arènes tournoi la war a doon. tournoi boo xam ne bi éliminatoire direct ba ku nekk te ka ca mujj kooku mooy roi des arènes. mais loolu nag du yomb comme loolu yombul xaalis la te loolu am promoteurs yi ñoom ñoo yor seen xaalis ñooy tëgg combat yi dégg li ma la wax CNG yorul benn fond bu mag bu mu teg daal ne tey nag roi des arènes lay organiser ñu xool nag roi des arènes par exemple léegi CNG bu yoroon un milliard wala cinq cent million téye ko ne léegi nag da tournoi laay def tournoi bi ñuy def nag damay jël catégorie yu mag yëpp ñooñu dañuy qualifier d'office ñu mag ñëpp la ñu ko qualifié d'office ñeneen ñu ndaw ñi nga xam ne ñoom rëg-rëg ak catégorie ñu ngi leen fekk ñuy def éliminatoire ndànk di di am ba leen a fekk si bu ñu bu ñu nag bu ñu génnee catégorie bi ñu nekkoon nag fekk si ñu mag ñi ñu ñu bokk ci tournoi roi des arènes bi roi des benn benn la boo xam ne bi dafa nekk à l'aile rek mu ngi mel ni coupe du Sénégal nga football ko ba pare teegul yaa ngi joué championnat mm-hmm. yaa ngi joué match international mm-hmm. am déet mm-hmm. dégg li wax coupe du monde day am waaye dañuy def qualification yi qualification ba ca fin ba ñu tànn 32 yi nga xam ne ñoo fi ñoo fi qualifié ci monde ci monde bi yëpp ñu daal leen defal leen nag ñu ne léegi nag ku baa ngi nii nag ku ñu dóor nga toog ku ñu dóor nga toog éliminé par point ba ku ñu ca mujj ku final ñu ne yaa yor coupe du loolu moo war a mais ni ñu ko organisé nii dañoo tëb organiser organisation boo xam ne ñi ko fi nekkoon dañ ko waroon teel a freiné balaa jëm kaw xëy na nag leen laa yaakaar dama yaakaar ne xalaatuñ ne woon affaire bi dina dina egg si fii loola taxaw ñu tëdd ko fii waaye it xëy rek daan benn mbër ñu ne ay roi des arènes loolu amul fen mais père euh, Modou Lo keroog daf ko wax ci conférence de presse. Mm-hmm. parce que daf ne bis bu ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc may samay rakk sens. très bien. te léegi yaa ngi nekk yaa ngi yor couronne roi des arènes. waaw ah. wàcc may Ama Baldé sens. waaw ah. te yàgg Ama Baldé lu mun a xew. Hmm. Ama Baldé bu daanee Modou Lo day doon roi des arènes. Ah. kenn dootu ko mën a dindi. waaw Modou Lo bu daanee Ama mun na sax wàccaat ci suuf mayaat beneen xale sens. léegi est-ce que kon du jar Modou Lo miy wàcc ci suuf. Hmm. choisir nee na bëri naa ponkal yëpp ba pare di wàcc ci suuf di maye sens. Hmm. mu ne maa ngi maye sens mais titre roi des arènes bi du ma ko teg. waaw mu koy tegee côté. waaw bëreeg yow parce que en tant que Modou moo bëreek diw euh, tey Modou hmm. moo bëreeg euh, ma ma joxe exemple ci yenn mbër yi euh, Modou tey. Hmm. may na sens Reug Reug. Hmm. wala mooy bëreeg. Sa Thiès. Sa Thiès moment bi mu nekk. deful lu tax mu mun a doon roi des arènes. parce que bëriwul ak ay champion comme fi Modou Lo jaar mais Modou Lo muy bëreeg Sa bu Sa Thiès daanee Modou Lo roi des arènes lay def doon Modou jël trophée bi tegee nee. may Sa Thiès saas bu ko Sa Thiès daanee teewul Modou Lo mooy roi des arènes et Sa Thiès def na ay jéego yéeg ci kaw su ko Modou Lo daanaa te téye titre am est loolu du jar ñu seetluwaat ko defalaat ko mais kuy bëri na dinaan titre roi mu ñu avancé. waaye yow da nga yow sama wax. Hmm. bi njëkk moom da nga koo leeral ni ma ko leeralee. Hmm. dama ne dëkk da nga daan yor drapeau. Hmm. yaay yor drapeau arène bi. yaay champion mais teg ko ne di nga bëri ñeneen. ngay bëri nag jour bi ngay bëri talaata drapeau da ñii da ngay bëreek ñoom drapeau titre bi ngay bëreek moom ñii bëri woog ñoom drapeau bi moom Modou Lo fi mu ne nii mën naa bëre yor titre bi bu titre bi jotee mu bëri ko ñu nekk en mu bëri koog ñooñ bu jógee ci loolu tamit pour bañ a pour di compétir ñu jox ko ñeneen mu bëri ñoom te bëri wuñ titre bi loolu lépp organisation la buñ ko organisé wul nañ ko war a organiser nii rek lay def nii rek lay continuer te Birame maa ngi lay interpeller di waxtaan ak yow ci affaire bi nga jóg ci ñu toog daje seet nu ñu koy organiser ba roi des arènes tegu ci yoon parce que roi des arènes tegoogul ci yoon boo daanee kii maay roi bu daanee kële mu ne maay roi ba roi wala kii du bëre kii wala te yow bëgg ngaa raw na te yow doo bëre kii kële du bëre kii maanaam dafa ci am yu xam ne Ama Baldé saytu su nekkoon roi des arènes mais du bëre Balla Gaye est ce que dina dina dina bëre Sa Thiès est ce que dina bëre Lac de dégg nga Modou mm-hmm. tey jii am na ci yoo xam ne xëy na bu roi des arènes bu nekkee ci am na ñoo xam du bëre ak ñoom. mais moom du bëre Garga Mbossé. Euh, waaw xam du bëre Papa Sow xam nga ñoo ñëpp tey ji ay mbër la yoo xam ne tey ji ku nekk yaa ngi xool foo mën a avancer ba mën a dem ci kaw mais pour nga mën dem ci kaw nee ngi formule bi ñu ko organiser baaxul. Mm. te loolu état généraux la war def dañ ci toog waxtaan ci seet nan lañ koy doxalee ba trophée boobu continuer comme ni drapeau chef de l' dara dafa sewle naa chaque année mu am waaw dégg kon kon noonu muy amee chaque année noonu la ñu waroon di organiser tamit euh, roi des arènes ki mën ci arène bi tournoi la war a doon feeg doonu trois tournoi nag kii dee daan kii kii daan kii kële daan kële kii daan kii rek ñu jaxasoo par dix ans roi des arènes dix ans foo ko euh, par dix ans tournoi dix ans foo ko a gis. un ban budget moo mën loolu làmb beer promoteur yi duñ ah, ah voilà kon lu tax ñu kon lu tax ñu wutal kon ñu lu tax indi roi des arènes nag xam nga bu ñu toppee rajo sociaux yi topp journal yi topp rajo rajo ak rajo yeeg journaux yeeg ak tubaab yi nga xam ne léegi lii yëpp amul woon ci làmb drapeau moo amoon ci làmb waaw voilà drapeau moo amoon ci làmb mm-hmm. yaa ngi dégg li ma la bi mu amee ci làmb tamit ki ko yor moo daan bëre. bu ko ko daal buñ ko tegee bu te fekk mu nekk en jeu koo rek ba keneen muy dab noonu moo daan dem yooyu comme amatul léegi nag indi nañu formule bu bees boobu formule bu bees bi nag laaj états généraux laaj ñu toog waxtaan ci seet nan lañ ko def ba mu tegu ci yoon mais tegoogul ci hmm. noonu la ko noonu la la commencé ca Balla Gaye hmm. noonu la commencé ci Yékini noonu la commencé ci Tyson ñoo la commencé ci ñëpp dégg nga tubaabu jor ndam si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana tubaabu jor daan na fi mànga xanaa kon roi la woon pourtant dund na ba dee kenn mos sa dégg roi kenn mos sa dégg tubaabu jor roi des arènes mm-hmm. kenn mos ko dégg ñu ngi door a wax ni léegi mànga mm-hmm. de man wax naa la fii man gisuma roi am mm-hmm. parce que roi bi moo Mor Fadam la bëreel ba ñaari nit mu tournoi mu doon ñaari nit ñaari nit rek mënu ñëw ko daan rek daan ko doon doon roi des arènes amul fenn loolu amul fenn dama ne formule bii ñu ko defee nii ba tey làmb tegoogul ci yoon. mbokk yi ñu leen di jaajëfalaat. waaw baax a baax a baax Père Birahim la ak Baye Djili euh, yéen yi nga xamante ni yi ñuy seetaan ku ci nekk boo ci amee sa gis-gis euh, war nga ko mën a euh, bind comme ni ngeen koy defee commentaire ci wax ci seen gis-gis parce que per gis-gisam la wax ma wax sama gis-gis. lépp ngir bëgg làmb ñoom jëm ca kanam parce que ñun amuñu lu dul làmb te képp koo xamante ni mu ngi fi lépp lu mu am làmb ñu xam buy ñu koy bu ñu ko may eh, ñu leen baax baax ñi nga xamante ne yéen suñu mbokk baax. waaw jërëjëf may kontaan rek parce que xam nga tamit àddina mm-hmm. euh, dara yàquwul. Mm-hmm. waaye dara jagul it. Mm-hmm. dara yàqu waaye dara jagul. waaw parce que lu ci nekk defaraat la laaj. parce que ñële toog nañu xëy na defar nañu am na lu ñu tëlee. mais ñii di ñëw war nañoo mën a defar di affaire bi baax tegu ci yoon ba ëllëg si biir suñuy doom ak suñuy sëti sataat bu ñëwee dañuy fekk di affaire bi tegu ci raay bi parce que football fa mu commencé woon liñ ci coppat di ko defar di ko defar ba mu tegu ci yoon nii bari na muy karaté ba muy judo ba muy boxe ba mu yooyu yëpp nga xam ne monde bépp ko bokk di ko def léegi ñoom ci seen bopp dégg nga tey jii teg nañu mbir mi ci yoon ñu am nañ seen règlement inter règlement intérieur boo xam ne bii ku ñëw ci ngay jaar parce que règlement bi am Thiès bi am Dakar bi am Sénégal moo am moo am euh, Gambie moo am France moo am Amérique moo am fépp fépp benn la parce que ñëpp koy def lii nag bu leen fàtte ne bëre dóor ñun rek ñoo ko am suñu cosaanu bopp la suñu cosaan comme bëre dóor Sénégal rek ñun rek ñoo ko am suñu dee cof ci karte cof ci judo cof ci boxe def ci day fekk na booba lañ cee cof di ko def ñu teg ñu fekk ñooñe nañu ko defee mu tegu ci yoon ñun ñu defee ko noonu mm-hmm. waaye ñun bu ñëwee dugal suñu yëfi bopp teguñu ko ci yoon tamit nii rek lay gàllagoo du dem du dem mukk ci àddina mbir boo koy teg ci yoon da ngay seet ña ngay roy ndax teg nañu ci yoon nga jaar ci yoon boo ko deful doo dem booy mm-hmm. moo tax defaraat du wees mm-hmm. nañ toog defaraat lii bu fekkee ru àddisaan bëgg nañ koo jox gëddaam dëgg dëgg dëgg dëgg nañ ko tegaat ci yoon defaat ko tegalaat ko jërëjëf mbokk yi euh, loolu lañ leen tàggatoo di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moom du tàqali ko ba léegi incha allah ci beneen jàngat làmb jërëjëf Père. jërëjëf maa ngi leen sant di la gërëm. Hmm. Eh, sama xalaat la loolu laa mën a wax noonu laa gis. Hmm. te ku ne la nga gis rek nga mën a wax. waaw la nga yaakaar rek nga mën a wax du loolu laa xëy na ñi may seetaan am na ñu ma dëppool ci xam am na ñoo xam ne xëy na dëppoo maa ngi ñoom ci xam-xam. ci hmm. gis-gis. loolu nag mbiri suñu borom la àddina moo demee noonu. maa ngi tàggu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. jërëjëf. ndaanaan laa ñaari yoon. bor boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca mën ci yi boor ak ci yëley nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma